Menti dis-moi, dag jij is mijn lijf? Tey jii ngi doon naa ndax xëy nga gàddaay Kaay ma sukkal la ma tuubal la lu mënti doon ma jéem ko bye bye bye bye bye bye bye bye. baay baay baay lu tax nga fay sa téléphone dem naa sa kër baay nekkoo fa La dernière là qu'il fallait au moins. Même la folie qui somme là. Tu sais que tu me rends ding ding. Sama ligue ma ding ding. Yeah, t'as mon côté du dingue. ñu ngi fii ci Dakar Actu tey ñu war leen présenter préparation waa Médina Grand Théâtre El Hadj Keita waaw nu wax ah Mamy Sène ngi nii xollee ngi nii marraine bi chéri Assane Bongo ci marraine nu El Hadj Keita yow El Hadj la bés bi ah yow ngay ngay chéri loo xam ci El Hadj Keita. barke yonent bi du yomb dina mel ni tukku suba na saañ ba réer déggoo ma de El Hadj jëf yëf yi ma ko jox ma ko nga xam ne rek daal dëgg du neex. dina bari doole dina mel ni tufe jaan ndaw bari dangar barke yonent bi yàlla nañ ci yàlla yóbboog jàmm ndax ndax dag ma sas nag jël bis yëkkati ma jox ma ko waaye di nga xam ne nag gor nga ko sekkal déggoo ma de madame Bongo dina bari doole incha tey jii ngi doon naa ndax nga gàddaay al nu în tidor Mândrim că vai, vai, vai, vai, vai, vai Vai, vai, vai, vai, vai Nu te-am la vrei să telefon Dă-mi să cât bai necova La ea la chifa lumă Dă-mi la puni ghisumă Tu zici că ce mă onengen Să mă ligei mă nengen E tămi cu tine danai Waa dama ne xadi ju mu ngi nii di sama tudd dëpp jaañe yaayam mbokkum yaay Aline Diop mbokkum yaay Ahmed Diop sama jigéen sama xarit yàgg ma jàppale moo tax ba ma amee bës moom man dama ko marraine waaw ci marrainaati ak gërënaati yow loo wax ci bës bi. ah yow xam nga ne moom sa bés du yomb ndax yow maa ngi yow dañoo yàgg nag ba nga nekkee xale ba tey yow lii moo ma tuddee sama tuddee sama bopp waxantuma moo tuddee waaye bis baa boobaa rek dina mel ni keteme waru asan. dina mel ni keteme kon. dof. douze bii. corner. coup franc. fii amul lu neex. célibataire yëpp le 24 décembre dañ na la takk jabar par force ndax dafa sedd. démb kaay. hélas nga da nga nekk suñu mag ju baax ñu yàgg nga bëggal ma sa bopp ma bëggal la sa bopp moo tax sa bés du yomb. dëgg neexul. ëpp na. mengaas naa la way ba mu neex. di ma way chéri baak loo wax yow nga ne. barke yonent bi bés bi El Hadj ñu ngi koy pare ni ñu koy pare dafa ëpp sax moo tabaski ndax da nga jël bés bi tuddee ko ñu mat tuddee Kole jotu ak Abi Ndiaye bu la neexoon nag bu la neexoon nga bañ nga nga ñu romb nii góosu droit doo ñu ko tuddee mais dañ ñu ko tuddee mais di nga xam ni rek. barke yonent bi rek ñu ngi ko sekkal ay góor lañ ay garmi lañ dama nga toog ba le 24 yal nañ fi yàlla yoobu si barke Serigne Touba barke Nooray ñu mën yaakaar. da nga baax barke yonent bi le 24 ngay xam ne yow waa Medina fi nga leen teg bu la neexoon nga romb ñu doo ñu nuyu wala nga ñu sa faa dem mais foo ñu fekk da ngay kaf ak ñun di réew ak ñun wàccee sa bopp yoroo jukkooy artiste barke yonent bi bàyyi faal nga te di nga xam ne le 24 ngay xam ne yow waa Medina yow lañ am. tey jii ngi doon naa ndax nga gàddaay mwen souken la Mwen Tu tu joxe ndogu yi lu ma xewle mu ñëw participer fu may dem mu ñëw participer bu may voyager sax mu ne ma am argent de poche demal yàlla def muy baax bëgg ma moo ma yar sax daanaka moo ma yar moo tax bés bi moom tamit dama ko ko tuddee pour delloo ko njukkal waaw ndax Papis sama lépp la Papis nooy waajee bés bi euh, suñu bésu rakk la parce que moom li mu wax dafa am solo moom euh, defi naa depuis tout tànk la donc lu yàgg dëgg la donc bés bi moom luñ ci mën dinañ ko ci def bu soobee yàlla parce que moom suñu rakk la te ñi ko ñi ci jàpp aussi suñuy suñuy rakk lañu bu soobee yàlla luñ ci mën moom bu soobee yàlla dinañ ko ci def quoi te dina El Hadj dina xam ne Médina wax xew la rue 25 nag de sur quoi jërëjëf. tey jii ngi kay ma sukkal la ma tuumal la salaamaaleykum salaamaaleykum salaamaaleykum mbokk internet yi euh, ma ànd ak waa Dakar Actu ñëw seet sama xarit muy Bamba Kanji mbokkum yaay Tafa Kanji mbokkum yaay Kanji production muy sama xarit bëgg El Hadj Keita mbokkum yaay Lahat Kanji muy sama frère moom bés bi tamit ci parrain la bokk Bamba Kanji ndax euh, sama lumière yi may defee vidéo yëpp. lumière yi may defee vidéo moo ma njëkk jëndal lumière ne ma am maa la ko may del def ay vidéo góor la garmi la te bés bi moom moo ko moom le 24 décembre loo wax ci bés bi waaw ginnaaw bañ sant yàlla julli ci bi sant suñu ñaari waajur yow xam nga suñu waay nga te da baax nit nga koo xamante ne bi ku ñàkk ñaan nga man ni nga may gisee nii sama àdduna lenn kese la ma nit mën a jaay muy ak taalib lu dul loolu faale mu te yow taalib bi nga ñu wan te ñu ñun ak yow doonut ay artiste ak ay fans ak ay mag ak rakk lañu suñu gaañan nga suñu lépp nga bis bi suñu bis la <coughs> buñ ci defee war nañ cee def buñ ci defut war nañ cee def. borom géejawaay loo xam ci bës bi loo xam ci la le 24 bi ak El Hadj Keita. yaa waaye yàlla ñu ngi koy waaj bu baax a baax waaye ñoo ngi ñaan yàlla xam nga yàlla yow ñu fekk ci tal ko xam nga yàlla suturaal nu ba am ci lu kaw suñu ci barke yonent bi yow borom nga merci beaucoup jërëjëf. tey jii ngi doon naa ndax xëy nga gàddaay. taalibe Serigne Fallou Fall Fall Fatick kay ma sukkal ma la. Oh, ma nekk waa Dakar ak ci laa àndaloon ñu seet si. bokk loolu caméra yi yëpp leer na. fim neni ne nii ñi ma xoolal nengkolal, def nañ ko dañ ko laal nañ ko laal pip nañ ko laal pip ñi ma gay, def yu bax yi mi ngi nekk russis mi ngi dem fan rafinel bi nga jëm ni ah kon yow paré nga fi ne ay way legi yow lo lo lo xam ci 24 bi. 24 bi waa Medina yëpp a ngi koy paré Sénégal yëpp a ngi koy paré ndax yow doomu Medina nga da nga bax bëgg wa koñ bi wa koñ bëgg la ñi ma sa sa la. waa yéen a yarandoo màggandoo te lu baax rek ngay def ci moom lu baax ngay wax ci moom kon boo xewlee yow ñun dañuy ñëw. waaw lii neexut kontaan naa. tey jii ngi doon naa nga gàddaay. Ah, eh, eh. ma sukkal laa lu mu ci Jalan buru bi buru bi buru bi Jalan buru bi jalan buru bi jalan buru bi jalan buru bi moo nami tabax kanji kalau li kalau li rek ah ah tafa kimo mooy kanji moom laa no wax sànq way way way wu rëy wi bamba kanji mbokum yaay kanji production nga ne wax. waaw rek parce suñu nit nga yow lo nek dañ ci pas quoi parce que borom bax nga ba paré yëg nga sa nit bëgg nga sa nit ba paré am nga coloré surtout parce que man ma nga la ci ndey ngone sama jumel borom ma jama sob mais nga nek nit ku bax dal franchement sans façon chaque jour kanam bima la gis tay mom la lay gisé bu suba moo tax loo nekk ñoo ngi ci quoi ñun ak yow ba gëj di faire inshallah té le 24 décembre moy date bu bax bi grand théâtre mom day joy bu soba yalla bu yalla parce que bu la yalla fayé sa xol rek franchement di nga kontaan quoi yaa xam li nga bëgg yàlla na la ci yàlla defal lu kawe sa njor réussite totale daal ñoo ngi sa ginnaaw vraiment euh, yow tu as un cœur d'or quoi yow yow macha allah Keita yow waaw yow ñoo ngi sa ginnaaw waaw jaajëf. Bamba ngi nii borom lumière yi borom lumière yi ngi sama xarit bi ak baax mooy leeral lépp la lumière Bamba la lumière Bamba mooy leeral lépp waaw kay Bamba partout. Bamba everywhere tegal fofu sa baram ma and ak wa Dakar ak ci ñu xooli faat tay jii ngi doon naa ndax xëy nga gaday ako di fëgg jaay kay ma sukkal marchand ambulant yeewaaw fajar la ni yeewooy jóg di jaay waaw tak seni sagar ngir lu nu yóbbu kër ga ay marchand ambulant ye woo naa leen ci le 24. ñëppay ñëw kenn du des Colobane rond point ñëppay ñëw dana dana met lool waaw waaw kontaan naa. tey jii ngi doon naa ndax nga gàddaa. mère Adié Touba nee na Adié Touba. nee na Adié Touba nee na Adié Touba. njaarama nee na Adié Touba. nee na Adié Touba ah nee na njaarama marsu de. marsude jantum ngalle mana wadi Ibeja. jam njarama Idaeja. namana la anana ana khalis bi khalis bi ñaata nga bëgg million rek million mom million lay laaj dama bëgg ñi sétal dakar at ngeen ñew may mère adiyatu ba million ndax macha allah li muy jaay dafa ko mën de ger tiaf gi muy jaay da ko mën million yi na genn waaw gis nga jëlal table bi mère adiyatu ba million la bëgg waaw million am na million xaaral rek maa lay laajal million doo xaar ma ma laajal million yi million yi ñëw léegi léegi. am na koo xam ne léegi léegi su ma waxee turam dañuy jox million ñaari personne lay woo léegi léegi ñaari personne yooyu bii baa soog joxal ma maire bi million un million Clara chéri Doro Gaye joxal ma maire bi un million muy deux millions foofa toj na am nga deux million fi mu ne nii jeex na. <laughs> yow. yow nag. nga uti ngooñ. tey jii ngi doon naa ndax xëy nga gàddaay. bassiste bee ngi nii bassiste bi. bassiste bi dundundun dundundun dundundun. waa mais Mansour ñu ngi lay siyaar Mansour Mbow di la bëggee di la wax nooy waajee grand théâtre bi. Ame ah, di grand théâtre bi du yomb kooku le 24 mom xam nga ni moom Médina Dakar France Europe ñëpp a ngi koy waajal le 24 suñu bés la ba pare ñu ngi leen di wax nag billet yi mi ngi dem ku yéex di nga ñàkk billet yee ngi dem li si des bëriwul ñoom leen ngeen jëndikoo ndax gars yi temps répétition yi yu tar la ñu nekk dañuy répété ba 3 heures 4 heures du matin ay morceaux yu bees tàq waaw du ñu lekk du waaw morceaux yu bees tàq nag waaw en tout cas surprise la lu ñu lépp surprise la duñ ko wax léegi dañuy bàyyi ba le 24 waaw nit ñi gisal ko seen bopp waaw ñu ngi si liggéey bu metti dañuy commencé 10 heures ba 4 heures du matin jàpp 5 heures du matin kon xam nga loolu du ay fo. Mình chim khô vai Bye bye bye bye bye Bye bye bye bye bye Luôn tăng là face sa telephone Thấy dinh ghi đồ à, na Đã khánh gà gà đài Cái mà su cần là Mà tu bên là Lúc mình thì đòn Mình chim khô bye Bye bye bye bye incha allah rabi ah góorgóor sa ginnaaw ah jaajëf. ah kii sama Cheikh Samba. sama grand sama serigne yaay Cheikh grand 24 décembre ak El Keita ñawul de Sénégal ak chemise ak super sang. non El Hadj yow sunu booy nga sunu rakk nga sunu lépp nga mais comme man gëjoon naa solo gëjoon naa génn mais yaa may génn loo 24 décembre incha allah. kontaan naa njaboot gi nii la famille kontaan nañ ayca. eh kii gala nii taximan bi mais taximan Moussa Moussa eh kii du Moussa naka moom Moussa El Hadj Keita. mais mais Moussa yow mais yow mais gu yow guddi gi guddi gi noo koy dundee. waaw guddi gi waaw miti rek mais man bu ma leen gisee rek damay kontaan surtout maa yow waaw yow moom may bégal baat sëñ Saliou sama xarit nga yow da nga baax yàlla na sa jàmm yàgg waaw nooy waajee 24 décembre bi naa nii nii nii nii si man ñëpp pare nañ pare nañ yow rek la ñuy xaar jeex na tey ngi doon naa ndax nga gàddaay Ça, c'est mon ami Sidi Keita. Sidi, mon ami, mon frère. L'homme qui a jamais fait d'erreur. Mbokum yaay Matan Yaye, Bug RH Keita, La Vision, Couture, Sama Matar Ndiaye lañ doon set wo nañ ko nee mi ngi ñew mais yow duñ la fi jéggaane ndax ko xam Matar Ndiaye xam ni jumeau nga léppam nga kon looy wax laajee bés bi le 24 décembre ak El Hadj Keita waaw inshallah le 24 euh, incha du yomb parce que ñun moom kenn du dem ñu des quoi franchement parler parce que suñu frère nga nit ku baax nga bon dëkk Médina bon bu la neexoon moom mooy loolu quoi da ngay romb nit ñi dooleen kii mais ñëng nga yëpp faale nga nit ñi. wan nga ñun suñu suñu suñu say say grand lañu quoi franchement parler incha allah le 24 bu yomb quoi franchement dañ siy jàpp ñu waaw suñu kéemtalaay waa vision mooy loolu ñu ngi si biir moom dëgg fa yàlla incha allah waaye pas de souci kontaan na ñëw far yow yow ñëw far. la marraine, la marraine de la soirée du 24 décembre avec Elashkita, la marraine de Maribar. Mais, mais, mais, salam alaikum. Salam alaikum. Mais, mais, mais, mais, grande adorée. mais ci loo ne ah bés bi dañ la ko jagleel ndax ku xam El Hadj Keita xam ko Ndeye Marie Baar yow lu mu mës a sañse yaa ma ko jox lu mu mës a sol yow la yàlla dafa def ma bëggal sama bopp ngay sama magu xol moo tax ma am bés bu mag boo xam ne muy le 24 décembre au Grand Théâtre ma jël bés bi jagleel la ko

ah loolu moom dañ ciy kontaan rek ah, di ko rafet. richeeku naa. Euh, yow moom. ëpp na. mooy loolu waaw nit ku baax nga nit ku oyof nga xam nga bëgg nga nit mooy loolu xam nga mën ma wax daal mais li ñu war a wax yëpp di la ñaanal yàlla euh, sa bis bi nga jublu yàlla li nga si bëgg yëpp yàlla def ko si quoi loolu rek la ñuy ñaan amuñu ku dul yow. te boo defee dara il faut ñu ñëw jàppale la nit ku baax nga nit baax la nit ku oyof la amoo benn problème dañ lay ñaanal daal sa carrière bi li nga ci bëgg yàlla defal la ko. waaw man moom mënu wax wax bu bëri maa ngi lay ñaanal bu baax yow moom ñoo far yow sama waay nga di ñaan incha allah ñu yegg si ak jàmm mooy loolu daal te xam naa ne day nekk réussite totale incha allah lay doon. kon waa Dakar ak tuddee ngeen la marraine de la soirée wax na kon tëj nañu léegi xam fan lañ jëm nañ dem vaarti. tey jii ngi kai masu kalla matuman lalu manti don majim ka bye bye vai, vai, vai Vai, vai, vai, vai, vai, vai lutan ga fai sa telefon dem ah, na sikir la fale dem maami nabi maami نبي سيدنا محمد موي محمد سيد الكونين وسقلين والفريقين من قرب ومن خجم داخل الله فالمستمسكون به مستمسكون في قلق وفي قلق ولم يدعنا لو لعجبنا كل فضل فضل فضل دون محمد فاضل العدل يا مدير القيبان إلى رسول سيدنا محمد muy woote ñu naan kii day njabaraan Seydina Mohamed baayu Fatima Seydina Mohamed baayu Roqaya Seydina Mohamed muy giiru giir ñi Seydina walina walaxirina yaa doy loo sëriñ Babacar eh, Bakare Daramar Aram loo maam Kumba Caam Buguma Penda Paate Penda xar yàlla bopp coore taalibe sëriñ Babacar borom bone kaare bi borom Tiwaawan musoo gis kuy mandi naan barkeb Maodo <laughs> tayingirona nahinga gandai kai masukanla matumela lumentidor manjim ko bye bye bye bye bye bye Lutanga face telephone, them na secure by neck cover. Lanya lucky file woman, them na funny gisumla. si que tu me rends ding ding. Sama ligue ma ding ding. Ye tar me godi di danai. fii laay émission bi La Vision ma ñëw ñu défal ma teranga té teranga du tout fii laa koy tëjee di len wax chaque jour da leen ma xaar ci Dakar Actu à partir de 21h nga taal Dakar Actu di ma fa gis ma yor micro bi ñu waajal le 24 wa Dakar Actu yéen a fi né Utengingirona nahengagadai Kaimasukanla matumela numentidor Majimko bye bye bye bye bye bye Bye bye bye bye bye Lutanga la sekir bay nekofa La nyala ki fale wuma Dem la funi gisumla Tu sais que tu me rends dingue Somebody gave my name, yeah, I'm a good day, design. Whoa.